altercation boo gis cooki fee si moo tax may ñëw feetaan. <laughs> du dara nag dara. mais maa ngi leen di merci si Bonheur Création. merci beaucoup merci nekk elle me doit mes tenues. c'est vrai de wax nga dëgg de am na yu ma yónnee dinaa la dinaa jël jox la ci. ah loolu de teraanga <laughs> àddina bët na Aïcha maa ngi ak <laughs> sama mag di soxna Fall ak ñi seetaan maa baax a baax. macha allah Aïcha mi ngi noonu yaay booy dafa fas yéene waxtaanee tey li nga xamante ni moom moo di la réparation de l'hymen maanaam opération yi jigéen ñi di def pour defaraat seen ndaw. Mhm. la TCI. dëgg la euh, euh, asma mu nekk fait de société boo ah, xamante ne rek temps yi dafa euh, <laughs> doy waar lool nag lëmbee réew mi <laughs> xale yu jigéen ñu bëri rek di def lu ni mel di réparation du li maanaam defaraat seenu ndaw waaye balaa ma ci dugg rek ñu soobu ci waxtaan bi dañuy ànd ak Mame di am na ay jigéen ñu nga xamante ne yëkkati nañ ci seen kàddu joxe ci seen xalaat Mame Sidi ñu ànd ak ñoom bu ko defee ñu daal dellu soit ci plateau bi sa yaram te xamuloo nan lañ ko defaree te docteur euh, lu ñuy wax ne validé wu ko dafay xaw a jafe day xaw a doy waar. déjà ñàkk gëm sa bopp jigéen da ngay gëm sa bopp ak tamit assumer say responsabilité man su ma demoon ba jël sama responsabilité. xam nga ne mariage relation de confiance te au départ bu confiance boobu amoo rek déjà base ngeen départ baaxul. xëy na contrainte sociale bi moo tax des fois. xëy na peut-être ak euh, valeur yi nga xamee ne moom lañ leen di inculquer mooy tax ñuy dem di defi euh, risque yooyu. pesanteur sociale fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi parce que bu ëllëgee boo amee sa gàcce <laughs> mais loolu ci société bi ngay génn imaginaire nga nekk euh, sa borom kër di ko nax di ko nax bés bu ko gisee bés bu ko découvrir et puis loolu aussi dispositif la xaw ma chimique la c'est pas naturel en tout cas. bu ëllëgee lan la mën a jural si sa wér gu yaram loolu yëpp boo ko xoolee boo xoolaat ko nga xam ne daal boo pesé nga xam ne jaru ko. su ma demoon bay marié damay jël responsabilité wax ko li am tegal xale bu góor bi bu nangoo xayrun su nanguwul xayrun. wolof Njaay dafa wax leen dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj. mais dootu la bëggati donc da lay xool comme mbalit bu mu ne ci biir kër dootoo ko saf yàpp doo ko saf jën. dangay gis ñoo xam ne dañ lay wax ne la carrément rien que pour jot la ne la. man loolu gawuma ko mais bu ñu demee ba war a taq ñoom li ñu bëgg mooy ñu fekk ci yow li ñu li ñu li ñu li ñu war a mooy ndaw bi. tooy takk jabar du parce que da nga koy takk ne dafa am ndaw wala amul ndaw jikko nit ki ngay takk li nga koy njëkk a gis mooy balaa ngay xam jikko bi il faut apparence bi mu neex la nga gis jikko bi waxtaan na moom jikko bi de ngeen dog tout dépend euh, ci nit ki daal. que ñun si historique yi am na ñu des fois ay ñoo xam yi dañuy juddu nee nañ te duñu am ndaw. le fait que nga dem di fayaat ñu dina defaral sa ndaw man complexe laa ko teg en fait. dañu sàmm seen bopp parce que li fi nekkoon du fi jóg moom xam nga sa mooy respecter sa bopp sàmm sa bopp. xam nga am benn engagement boo xamante ne yaa ngi ko yaa ngi si xool sa parent yi boo liggéey ñoom ñu si loolu ba tey mu ngi fi de am na ñu ko gëm ba tey. justement mu nekk moment. témoignage yoo xamante ni je pense que euh, dafay contribuer. Euh, tout à fait tout à fait day contribuer ci maanaam li xew ci jamono ji xale yu jigéen ñu ci bari nag du ma ne ñëpp de ñu ci bari rek euh, di def lu nu mel di jaajëfal madame Sow Aïssatou Ndiaye ak Aminata kamara ci euh, xalaat yooyu nga xamante ne nag génne nañ ko ngir euh, yokk xale jigéen ñi nga xamante ne nekkaguñ ci biir néegu sëy yokk leen euh, xalaat parce que aussi am na loo xamante ni ci réew mi mu ngi ruumadaat te nag luy raam ci ñag bi la jëm yegg na sax ci ñag bi buñ demee ba nga xamante ni ñoom dañuy dem di def réparation du limen maanaam defaraat seenu ndaw gannaaw ba ñu foyee ba seen xol sedd defar ndaw googu nag eh, jalal na leen lu ne dinañ ci fay lu toll ay fukki junni yenn saa di ci fay ñaar fukki junni ak lu tegal ay junni yu bëri dinañ ko dajale ngir rek nee nañu am seen eh, honneur te mu nekk loo xam ne risque la wax nañ ko risque la complexe la itam nit ki eh, ngay jigéen bëgg dugg ci néegu sëy war ngaa mën a téye sa bopp ndax nag téye sa bopp mooy fullaak fay di jigéen benn lal jomb la kon ni jigéen ñi nañu fexe ba daal lu ni mel nañ ko moytu parce que itam Eh, boo demee ba nga ne danga nga réparer sa ndaw dëgg la boo dajee koo xam ne xamul loolu kooku mën naa ñëw sax fekk la nga nekk jànq mu kontaan waaye ki nga xamante ne dox na comme yow xam lan la mu ñëw fekkul ci yow loolu da nekk euh, lu rafet seen diggante parce que jigéen am na foo xamante ne boo fa jaaree ak góor da lay respecté ilaa yow mi diin dëgg nag mooy commencé dëgg mooy mujj kon ñi nga xamante ne ñu ngi def lu ni mel euh, dama yaakaar ne war nañ cee bàyyi xel bu baax ndax mën na leen jural feebar mën na leen jugal jàngoro yoo xamante ne ndax loo xam ne dañ koy jël dugal ko ci sa biir kanam mën na laa jural loo xam ne xamoo sax lan la lay indil ëllëg kon risque bi foofu la nekk ñi nga xamante ni itam ñu ngi xalaat def ko dañ leen di dissuader rek parce que mën na leen indil ay jafe-jafe te lu mel noonu boo ko defee di ci waxtaan ak saxarit xarit sa xarit nga waxtaan moom xaj na moom moo lay dugal ci loolu xat ci xelam bu gàtt defar diggante bi ah jamono buy dox di dox ba yow euh, sa borom kër euh, xam ne jaaroon nga fii donc peut-être du la ko wax mais dina la ko xoolee bët boobu mu lay xoolee nag nekk na bët boo xamante ne euh, euh, euh, Aminata Camara wax na ko nee na da lay xool comme mbalit ci biir kër gi dootu la wekk dootu la respecté gëdd ba mu la waroon jox dootu ko jox te itam bari na ci ñoo xamante ne bu ñu jànkoonteeg lu nu mel duñ la sax wax dara dañ lay xool bu ko defee yow nga naan waa diw yow lan laa lan lan moo xew lan laa joteeg yow du la wax dara dalay lay xool avec mépris yàlla na ci yàlla musal bépp jigéen ndax nag néegu say dafa xat te dëgg rek moo fa xaj kii wax na ko sànq Aïssatou Ndiaye nee na dëgg moo lal lépp mu metti nga wax dëgg mu neex nga wax dëgg ndax boo ko defulee itam di nga dem jamono joo xamante ne eh, di nga xat ci sa biir néegu sëy te xataay boobu yàlla na ci yàlla musul bépp jigéen. très bien très bien en tout cas mi ngi noonu Luisa Diandi am na ñu wax ne xëy na naam eh, dañ jigéen yi ñu violé elles ont ce besoin de retrouver cette virginité qu'elles n'ont pas donnée par rapport à elles xëy na dañ moo leen di ci dugal et et en tout cas c'est un choix personnel mhm. Euh, qu'il convient de respecter parce que euh, ku ci nekk en fait li la mbir bi jaral comme li ngay wax am na ñoo xamante ne dañoo subir ay violences euh, sexuelles ñu viole leen euh, ñu wala ñu juddu sans hymen ñëpp xam nañ en fait que société bi nu muy xoolee ba ki nga xamante ne dafa sëyte amul virginité donc loolu tax na peut-être nit ki ñi dem recours euh, euh, ci euh, ci chirurgie boobu noonu après pour moi être vierge si c'est nuit de noces ou pa ne détermine pas le respect ki la sa jëkkër ji jox ne détermine pas aussi sa sëy ndax dina dina nu mu tuddati dina yàgg wala du yàgg ne détermine pas aussi ndax jigéen bu baax nga comme ni ko daam bi waxee jikko yu baax moom la ñuy taamu ci jigéen mais après ça reste un choix personnel boo xamante ne vraiment du loo xamante ne euh, euh, euh, dañuy juger ñi nga xamante ne ñoo ngi koy def mais il faut faire très attention ci pratique yi te comme li ñuy wax en fait l'anatomie de la femme est très sensible il faut pas tout mettre sur ci li nga xamante ne mooy organe intime bi mais nit ki bu demee ba di ko def wax dëgg yàlla na xool yoon ba nga xamante ne moo baax te bu ëllëgee ah, am na loo xamante ni mënoo ko nëbb. mais Luisa euh, euh, on a des réalités socio euh, euh, culturelles ñun duñu ay tubaab du dëgg tubaab yi li leen li maanaam seen liberté jaral na leen lu nekk te ñun am na foo xamante ne fañ leen lañ lay xoolee. xam nga nga juddu ci sa ndey ak baay nekk jànq maanaam nekk xale ñu la yar ba nga nekk jànq loolu ñuy wax noonu ndaw ci jigéen dafa nekk loo xam ne lu rëy la ñi nga xamante naan gëmuñu ko gëmuñu ko muy góor ñi ak ñu ko gëm tey jii bu ñuy fo dañuy dem fo ki bëgg a mais bu ñuy dem di wut jabar dañuy dem di wut soxna dañuy dem ki nga xamante ne mi ngi toog ci wetu way juróom dëgg la nag le monde évolue mais c' pas une raison nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax damay yokk juste lu ndaw que ne euh, on n'est pas duñu ay tubaab de Mm-hmm. mais société bi ni muy demee. fii mm-hmm. Mm-hmm. comme ay tubaab la ñu. justement justement Aïcha jamono ji gis nañu sax koo xamante ni dafa dem yaay booy xëy na jël ki nga xamante ni moom moo di jigéen bu xëy na ay jamono mu nekkoon kuy jaay boppam. def ko soxnaam. soppi jikkoom xëy na naam moom la ñuy wax ci peut-être jikko mais quand on reste dans le vif du sujet et qu'on parle de la réparation de l'hymen je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà perdu de base. te bu fekkee ne da nga koo perte si ngay xam ne ndogalu yàlla la ki ngay kiy ñëw. yow soxna Fall xëy na moom dala war a nangul ni lii yàlla la du dëgg tey lii la ko yàlla sédd yow mi foo nag ba ngeen daje ci foo ndaxte damay dégg sama yaay di di ma ko wax mu ne euh, boo demee ci bistro ba na nga leer na la leer ni boo fa bëree tànk sa boroom kër foofu ngay dajee ak moom et donc ainsi de suite ça sa ça va de pair alors tey jii bu fekkee nii danga xam ne ni amatoo hymen nga dugg ci góor boo xamante ni xëy na loolu maman suñu cosaan la bokk encore une fois aussi euh, moom loolu intéressé na ko est-ce que wax ko dëgg rek dëgg la. xam nga viol leneen la. Mhm. nit moom man gëw ma ni dinañ la violer ngay dem di wuti email. Mhm. parce que sa conscience tranquille déjà psychologiquement doo nekk. da ngay li fi nekk nga koy wax xam na nañu du sax ak mbon du sax ak taxawaalu. Mhm. leneen li mooy li Luisa wax sànq xale yi dañu koy def choix lay doon. ñu def choix foowee seen bopp bu ñu euh, foowee ba mbir man a am ndax mbir mi euh, am na ci ñoo xamante ni si du du sag bi du jom ji xam lu leen ci neex. laabaan ga. dama yaag tëgg ga ak taasu ga. moo leen ci neex ñu ne diw nangam tëdd na nangam ak nangam yooyu leen ci neex. dëgg la ndax dama jàpp ni Adja xëy na bu njëkk dañ ko daan def pour. sa yaay wala sa waajur yi siggi ci biir kër gi ñu nekk ndax en général këru famille la daan doon mhm. siggi ci koñ bi ñu nekk moo indi lu ni mel ndax xale ngi dem di tëdd nekk jànq te kenn du yëg mhm. te pourtant dañuy jël lay jël yóbbu hôtel mhm. na sa yaay yëg ak sa sa sa bàjjen parfois sa mën nañoo bañ a yëg te pourtant yàqoo sa bopp justement Khalifa Babacar Mané góor la nee na la ci n'est pas une fin en soi surtout ci jamono ji nekk na valeur nag jigéen ñi nañ téye seen bopp c'est pas une raison pour di pasar pasare seen saison boobu mais boo demee ba amatoo humainement je pense que au lieu de prendre le risque de mettre sa vie en danger et même sa fertilité en danger. il serait mieux de pouvoir en parler à son mari waxee sax parce que aussi comme li nga wax rek sa euh, nga mettre en danger ta fertilité. Mm. nekk na loo xam ne lu yéeme la parce que di nga dem ba bëgg am doom mu tëla ngay dem ak dikk ci l'hôpital yi di defee analyse ak ni mel waaye.